daje woon fii Saint-Louis euh, ngir def benn journée une journée scientifique boo xam ne chaque année dañ koy faral di amal ren nag ñu choisir Saint-Louis pour ñu ñëw defee fi journée bi journée boobu mi ngi euh, thème bi mi ngi jub si euh, lu ñu tuddee les infections sexuellement transmissibles maanaam infection yi nga xam ne wàllu sëy lañ koy lañ koy wàllante di loo xam ne dafa jéggi dayoo ci àdduna bi te su ma nee àddina bi génnewuma ci Saint-Louis te ñëpp xam nañ aussi faj bi ak euh, prise en charge bi dermatologie dañ ci am rôle bu important ndax su ñuy wax dermatologie c'est pas seulement euh, spécialité buy faj wàllu der mais aussi spécialité la boo xam ne day faj wàllu infection sexuellement transmissible on parle de dermatologie vénérologie euh, di contentement recevoir ñi nga xam ne seen xam-xam ci wàllu dermatologie bi kenn naataale mu ko si àddina bi xam ne seen xam-xam wane nañ ko fépp ñu ngi fii nekk suñu maître nekk ñoo xam ne ñoo ñu jàng ba ñu mun dermatologie bi ba tey dermatologie foo dem ci Sénégal di nga fa fekk au moins benn der région boo dem di nga fa fekk benn dermatologue yaakaar naa ne loolu suñu ko amee euh, dañ koy gërëmee euh, ñi fi teew tey euh, ak aussi importance bu ñu accordé Saint-Louis pour ñëw tenir seen activité activité bi nga xam ne bokk na ci activité yu gën a am solo ci wàllu dermatologie waaw waaw Saint-Louis temps yi ñu ngi góorgóorlu bu baax ci prise en charge dermo euh, maladie dermato dermatologique yi de façon générale mais aussi si prise en charge IST ndax bu njëkk ba euh, dermatologue yu bëri daanaka Dakar ngeen doon euh, Dakar ngeen nekkoon fa ngeen woon région yi amutoon benn dermato mais at yi ñu génn am na ay effort yoo xam ne ñun koy def ci cadre DS bi ngir que fépp foo dem ci Sénégal région boo mënta dem euh, nga fekk fa benn dermatologue et yaakaar naa ne saint yi aussi euh, desut ginnaaw ndax euh, xam nga Saint-Louis dafa nekk si benn point bu stratégique ndax suñ ne Saint-Louis yaakaar naa du Sénégal kese donc c'est la zone nord pratiquement donc dañ ñun en tant que praticien bu nekk hôpital dañuy recevoir di recevoir ay yoo xam ne dañuy jógee ba Mauritanie ah jógee ba donc di